tedd yi ñuy topp ñu nga taxaw ak inspecteur sëñ Mountakha Diatara di borom xam-xam bokk ñi nga xam ne ñoo ñuy taxaw daara ji ci la bokk euh, dañ koy laaj rek euh, ban yëg-yëg la am ci liggéey bu am solo bi nga xam ne sëñ Mountakha eggal na ko te muy mébétu sëñ Touba sëñ bi bindoon ko bàyyi ko fi jamono di dox ba mu ñëw ci loxoy sëñ Mountakha yàlla dogal mu eggee ci ay loxoom ba war koo ubbi ji jii loolu bañ yëg-yëg nga ci am sëñ mu waaw bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi leen di nuyu baax ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ moo ñu fi dajale tey muy bis bu màgg nag boo xam ne xoli jullit yëpp ak xoli murit yëpp sedd na ci ndax bis bu ñu doon séenu la naan dana ñëw dana ñëw kon dañ doon waxee naan yàlla nga fekkee matuk jumaa ji noonu la ñuy waxee yàlla nga fekkee matuk université bi kon ñun ñu ko fekke am nañ tawfeex boo xam ne war nañ ko sant yàlla bu baax a baax a baax a baax muy liggéey boo xam ne nag noonu nga ko waxee mébétum sëñ tubaa la woon yenn lenn ci mébéti sëñ yi nga xam ne réalisé wu ko woon bi muy bi bi muy nekk bi mu fiy nekk bàyyi woon ko gannaaw battali ko ay ay ay ay njabootam ñu eggale ko ba mu des bii muy jumaa ji ak aji makka ak ak euh, université bi jumaa ji ay njabootam àggal nañ ko ba mu àgg fi mu àgg euh, euh, li ci ki aj makka gi moom it defal nañ ko ko waaye lii nag moo ci desoon nag ay njabootam doon ci doon tàmbale woon ko ba tey jii nag sëñ Muntaxa eggale ko ni mu ko eggalee nag eggale ni ko ne ku fi dugg da yéemu ci yàlla ku fi dugg xam ne sëñ Tuubaa amut morom te lépp lu mu mas a wax. ba muy wax naan leen bil Moustapha lii banal xuduusu madrasatan booba am na ñoo xam ne ba xamuñu woon loolu lu mu doon léegi nag ku ñëw ci barab bi danga nga xam ne loolu lu mata lu am la ndax ni mënoon naa am te bañ amee nii waaye nii mu amee nag gannaaw yàlla ak xëruk mun taxaa ku fi dugg xam ne lii ku xër ku am ambition moo ko def ndax ku xam ku xam àdduna ni muy doxee nga xam ne lépp looy def da koy yaatal ba nga xam ne àdduna jëpp danañ ci xaj kon ñun ñëpp ñu ngi ndokkeel suñu bopp di ndokkeel jullit ci àdduna bi ci euh, euh, réalisation bu mag bi nga xam ne am na ak te murid yi defal ko seen bopp ndax li ci gën a yéemu mooy loo fi gis rek murid yee ko def daanaka ñoo wax ne nangam ji état ko fi def xëy na état am na lu mu def waaye lii feeñ ñii lépp murid yee ko fi def lépp murid yi ak ak ak ak seen takkuwaay. waaye contexte bi mu ko bi mu ko santaane. covid covid bi. ak jafe-jafe àdduna bi. loolu yoonu murid nag noonu la ma a doxee. noonu ndax ba ba euh, bul fàtte ne Jumaay Njaareem daa dajeeg de guerre mondiale. jumaay Touba daa dajeeg deuxième guerre mondiale lii itam dafa dajeeg Covid bi mu ci lenn loo xam ne mos naa taxaw lenn lenn waaw ah, xam nga sëñ Mbir Moussa 45 la fi jógee te boobu jumaa ji day door a taxaw rek ba mu àggagul sëñ dikk yor ko ci biir at yooyu daal di koy réaliser naka doon itam jumaa Njaareem noonu lañ ko taxaw la première ne booba ñu ngi ci biir guerre bi loolu lépp mu ngi di réaliser ngir xam seen pas-pas ak sëñ Touba lu ne dana ko am rek da koy am. kon ngi ci ndokkeel suñu bopp di ci ndokkeel jullit yëpp tey ñaan suñu borom tabaraka wa taala sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo eh, moo yor initiative bii yàlla may ko mu ñëw ubbi ko ba ñi fi njëkk a génnee ak ñi fiy génnaat lépp mu seere leen jox leen seen i diplôme ci barke Cheikh Law dem ne xanaa ab soññee la war a doon ci murid yi war yoonu yoonu xam-xam la yoonu xam surtout loolu surtout loolu ndax naka jekk yoonu mosu ñàkk nekk yoonu xam-xam waaye nag lu koy tegtale nag mi ngi mi ngi mi ngi gën a fës ndax yoonu yàgg naa ci xam-xam eh, boo gisee daara yi fi am ci dëkk bi muy daaray alxuraan daaray majalis waaye même école yi yooyu jamono yii sëñ Mourtala lim ci ubbi ci adduna bi yëpp ak ci réew mi yëpp sëñ Cheikh Mbacke lim fi ubbi yëpp ci jamono yëpp mën nañoo wax ne daanaka kenn defu ko ci réew mi lii nag day mottali lool rek mais loolu loolu ñu doon liggéey tey lii da koy mottali kon mottali la boo xam ne naka na ko na ko sëñ Fallou Mbacke waxee woon ba jumaa egee eggee ba jumaa mag ah, Touba egee mu mu jàkkaarloog sëñ Touba wax ko ñaari bayit yoo xam ne yu am maana la kama qad kunta taamulu yaa xadima به هنئت في دار النعيم فكن في نعمة أبدا مقيما معافا مرتدا سيخ الخديم نياري بيد يوي من نكو وقت يي نيكو ليكو سيني توار